monsieur le ministre permettez-moi ma ñaanal balaa maa commencé sunu gaynde Sénégal yi yàlla na leen yàlla may ndam tey ci barké Serigne Touba ci barké Cheikh abdoulat ci barké mag ñu bax ñi nga xamantene ne ñoo teud ci réew mi ah football bi nak dafa taxo ak sama tour kon nak ma ngi ñaan tay ñepp nañu ñaan ñu am ndam bu nu amé ndam ñuy continuer di am ndam inshallah Cheikh abdoulat dina ma ci jappalé eh, maa ñaan monsieur le ministre eh, ñu avons intégration eh, inégalité sociale et territoriale ak social. sociale monsieur le ministre nous avons en commission dafa mon habitude bu Sénégalais yi di le président Karim Maïsawad, ministre du ciel et de la terre Nous avons ma ce ministère bi damay wax né ministère de fi jaar yépp nag am nañ solo mais sa bos bi dafa mel ni daf cee ëpp solo dix fois ci ministère ci des. sentir man la sentir je l'avais je l'avais dit que ni vous êtes mou <laughs> à l'image son image parce que mais le ministère dañ ko ressentir ci population yi te man wax dëgg

ça n'existe même benn benn pavage amuñu ko benn benn benn pavage waa du ñu dimbale ngir yàlla wàcc ci dëkk bu mel ni ay caaroy ay ginaawraay raay ay yooyu ñamal leen ñetti pavage ñeent sax ñu xam ne ñun ci rëkk bi lañu bokk ah xamoon nañ ni ba wàqi naan tey boo fa demoon tey muy tali Icotaf am na benn programme boo xamante ni bii président Abdoulaye Wade di dem en 2012 la ko fa bàyyi pavé nañ presque euh, tali yu bëri mooy mairie euh, ministre euh, kii Diop mais tay ñun dañoo nekk ci dëkk boo xamante ni vraiment monsieur le ministre dañu ñu fàtte te bu ñuy wax aussi équité territoriale ak solidarité nationale mooy ñëpp tolloo ñu fexe ba fatt fatt trou yi nga xamante ne ñenn ñi gisuñu ci seen bopp parce que loolu mooy ministère man sa ministère particulièrement particulièrement man dama koy soutenir parce que lu tax ma koy soutenir mooy dama jàpp ni dafay jëriñ dafa war a jëriñ sénégalais yi mais dafa sedd trop activé monsieur le ministre nekkoo fi daaw doo ko bees nekkoo fi ren da nga remplir gënal activer gënal activer dug wàcc aussi ci ci ci banlieue bi ñu sentir le touti ci li ma xam euh wax deug yalla gisoon naa que que ni aussi gamu yi am man ci dëkk bi ma dëkk waxoon naa ko ci ki muy PAM ñuy def gamu yu mag yo xamanteni dans le département de Kébémer la euh, am na ko ko wax légui wax deug yalla ñooñu aussi bokku nañ ci li nga xamante moy liñ leen war a ci walum gàmmu ak yu mel non, mais do sentir dara donc monsieur le ministre man je vous encourage comme comme comme comme d'habitude mais aussi euh, gënal communiquer ñu gëna xam la lan la ministère bi di def et puis en plus nga wacc dans la banlieue surtout la banlieue de Pikine pour nga nga nga corriger il faut corriger monsieur le ministre je vous remercie